asalaamaaleykum mbokku internetu 24 actu ñu ngi leen di nuyu di rafetlu bu baax a baax ànd bi ngeen di ànd ak ñun saa su nekk ñu leen dalalaat ci seen beneen numéro seen entretien tey nag dafa spécial dañoo dalal ko spécial koo xamante ni kenn dootu ko présenté ci mim réew muy Serigne Khadim Dieng def gis moom lañ koy woowee Sénégal gépp daal dañ koy xàmmee duñ def lu dul bàyyi ko rek mu daal di ñëw mbokku internet yi koy seetaan sëñ bi naa la. fay naa la asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñoo ngi nuyu ñëpp di leen ziar di nuyu 24 ak te di leen ñaanal yàlla site bi yokk lool te du nuyu senegal gépp incha allah. bëggoon nañoo xam tuuti rek la sëriñ xaadim la mooy sëriñ xaadim ak lan mooy def gis. maanaam sëriñ xaadim ab taalibe la. taalibe sëriñ Touba la bu nekk ci réew mi suñ borom dogal mu jàngi woon alquran ñëw la nekk ca waajuram juróom jàngal ko ko mu fas yéene nekk ci di ci liggéeyal sëriñ Touba ci dëkk bi. ak fépp ci àdduna euh, baatu def gis nag moom du lu may waxal sama bopp lu nit ñi wax la ne def gis maanaam def gis nag moom mooy loo xamante ni nit ki bu ñëwee wax la ajoom nga jëm ca suñ borom suturaal la ci ba loolu loolu mooy def gis maanaam nit bu ñëwee wax la ne la damaa soxla nangam suñ borom suturaal la ci ba loola mu amee na nga ko bëgg wala nit ka amee ko na mu ko bëgg loolu mooy def gis. waaw. leer na suñu xaadim dañoo bëggoon a xam ne yaa ngi yëngu ci wàllum ñaan ñu bëggoon a xam ndax loo loo doon la wala loo gëstu la. donn moo ëpp doole lépp ci ñun donte dem leen fépp waaye lu ñu fekk suñuy maam di ko def la suñuy maam junjoon ñu ci ne bu ñu ñëwee itam ginnaaw ñoom ñun loo tax ñu nekk ci gëstu woo itam def nañ ko yaakaar naa fu ñu ciy dem dem nañ ko fa. dem nañ ko yaakaar naa fépp rek fu bari rek laay mën a wax ndax dañuy xool lépp loo xamante ni luy jariñ la luy jariñ àdduna la fu mu mën a ne ci àdduna dañ koy wuti dañ koy wut ngir maanaam mu jariñ mu jariñ mbindeef maanaam moo tax dem nañ ci fu ñu ci war a dem ak fépp foo xamante ni suñuy kilifa xamal nan ñu ne ni ñii suñuy kóllëre la suñuy kóllëre lan woon ak ñoom dem nañ ca foofa la fa nekkatam ci lu baax maanaam ñu jël ko liñ ci war a defal jàmm yi ñu ciy dox ak ñoom moo tax maanaam fekkee donn gi am na gëstu gi am na dem ci fu bareetam am na waaw mhm. ñu gis ne tamit ñaan dafa bari loolu ay facettes ñi dañuy ñaan dañuy listixaar soogay ñaan ñi dañoo yor ay sunguf ñii di ñaan ci xalima ak daa ñii di joxe sax ay jaaro ñu bëggoon a xam suñu xaadi moom ban la si yor xam nga boo nee ñaan lépp la maanaam boo nee ñaan yow mii ñaan yàlla ab jaamu bu yàlla nga mhm. boo xamante ni jaamu bu yàlla boo xamante ni dangay ngay jaamu yàlla mhm. li ngay ñaanati moomoo yàlla nga koy ñaan suñu borom moomu ngay ñaanatim da dangay toroxlu ci kanamam rek boo toroxloo ci kanamam ñaan ko suñu borom dana la may ñii wut ci sunguf yi sax ñii wut ci sunguf yi sax bu ñuy dem dañuy wax bismillaahi rahmaani rahim tàggu garab ga soo ko jënd ci soo ko jënd la ñuy jënd kon maanaam ñaan looy def rek da nga koy ñaan yàlla ndax boo ko ñaanut yàlla loo mën a gis ci ñaan yàlla la la déparé loo bëgg itam te mu gaaw ci ñaan yàlla itam ci la ci la ci la ci la gën a. kon sunguf yi ak uh, yi ñuy bind ci xalima yi tamit ñoo yam leen lu ñuy jariñ. xam nga sunguf daanaka uh, sunguf su nekk am na ay alxuraan bu mu dëppool tey jii am na maanaam uh, loo gis maanaam boo boo gisee boo gisee boo xay am na aaya boo xamante ni moom la dëppool moom la war a àndal soo waxee ne waswasoor am na aaya boo xamante ni moom la dëppool soo waxee fuuf am na aaya boo xam ne moom la dëppool. garab yi yéeti meññee fi suñu boroom la alxuraan jii di waxi suñu borom meññee fi suñu ñaari bi ñaari yëfi suñu borom ngay boole dangay xool fii li cay jariñ ak li mu mëngol fii nga boole ko ngir mu jariñ nit ki am na loo maanaam maanaam ñoom ñaar ñëpp ñoo baax waaye nag dama laa doon wax léegi ci ñaan yàlla dafa bokkut ak nit koo xamante ni nit dana dem ci nit mu jox ko muy sangu ba doyal te du gis dara mhm. loolu noonu dafay faral di wa biddiwam dafa wàcc gis nga nit bu biddiwoom wàccee foo mën a dem ci àdduna bu la doon sangu ba àddunay tukk doo jariñ ndax kooku noonu maanaam biddiwoom bu wàccee maanaam kurus dong ngay jël xool tabiam li mu tolloon xool tur yàlla wi nga koy liggéeyee moom mu fanaanoo yére bu wax fa mu man a ne du la gis nga toog fi nga toog génneel ko da nga koy génneel maanaam yëkkatiwaat ko ba mu dem maanaam li may wax nii ñi ñi am xam-xam laay waxal parce que man waxuma ak maanaam ko xamul ñi am xam-xam nañ ni nit ki mën ngaa dem di sangu ba doyal te gis dara xam nga lu koy waral uh-huh. mooy nit ki maanaam xool nga biddiwam moo wàcc am na ñoo xamante ni seen biddiw dafay toll lim sàngam uh-huh. ñu ne leen biddiw ba tey ma ngay dox est-ce que nekkul faral di loolooy waral des fois da ngay dem di ñaanu doo gis li ngay ñaanu dara lu ci ëpp nit ki maanaam kuy ñaan te xamoo wàllu biddiw uh-huh. mënoo ñaanal nit mu gis ko maanaam booy ñaan dangay ngay xam wàllu biddiw xam heure bu biddiwam di jóg xam heure bu biddiwam di wàcc maanaam nga mën a jàppale nit ki ngir mu yéeg nit itam noonu nga ko mën a wàccee itam ci biddiw ba kenn mënu koo sangata dem ba mu jariñ noonu nga ko mën a jëlee maanaam sa kurus ci biddiw ak sa kurus ak li mu tur yàlla bi nga bëgg maanaam wàcce ko ci ba du dem ba du ba du ba kenn koo xam ne da koy sangat képp nga xam ne xamul biddiw mënu cee dem fenn maanaam loolu moo am loolu moo xaw a yéeme ci ñaan. Sëñ Xaadim jaaro yi nag des fois dañuy gis ñu joxe ay jaaro. xam nga jaaro moom bari na ay façon waaye tey jii euh, man li ma ci xam moom sañu ma suñu maa toog fii ne jaaro bii nii laa koy defee. waaw waxal pour ñi nga xamante ne ñu ngi seetaan te gëmuñu jaaro yi pour ñu xam. xam nga loolu am na lu solo am na ñoo xam ne seenu loxo tey jii maanaam li li si nekk dafay gaaw a dem nga am ay alxuraan yoo xam ne nii wala sunguf boo xamante nii soo ko ci defee loxoom li ci nekk suñu borom mën na koy téye ndax dégg nga ma waaye doonul ay doonul maanaam jaaro yépp bon gis nga euh, ku am xam-xam du weddi kenn maanaam ku xam dara maanaam doo weddi kenn. maanaam ku xam dara da ngay jàpp nit ñëpp kenn ku ci ne am na lu la yàlla may man ngaa nag xaabaabal ci loo wartu dugg ñu gis nga ñi nga gis ñuy waxtaan ci xam-xam ñëpp ku ci ne am na loo xam xam nga lu am solo mooy dañuy xaabaabal nag ci lu ñu wartu dugg kenn koo gis rek mën ngaa xaabaabal ci lu mu wartu dugg boo ci xaabaabalee nag nit ñi mën na ne xamoo dara fekk ne am na loo xam ne waaye da dugg ci loo wartu dugg maanaam loolu moo ci nekk xam am na ci ñu yàlla may jaaro yu wér am na si ñoo xamante ni luñ defarim suñ borom dañ leen ci suturaal ba mu am. maanaam jaaro moom xam nga ne bu jaaro kese. Mhm. maanaam yow kon nga dem jëndi jaaro takk. maanaam jaaro moom da ngay dem wuti jaaro maanaam dem ca ka nga wóolu yaakaar mhm. maanaam moom mu xool la nga xamante ni xam na ne lii suñ borom mën na ko sut xam nga nit du ko si da nga naan li may def dana am force. maanaam loolu ku ko wax xamoo dara. gis nga loolu ku ko wax xamoo dara yow dangay ñaan yàlla ab jaam nga buy ñaan yàlla dangay ngay toroxlu li ngay toroxlu bi ngay ñaan yàlla da ngay toroxlu pour yàlla may na li ngay li lim lay may ba pare nga bëgg a wax li may def kenn mënta dee moom loolu moom kenn xamul ku la ko wax xamul dara ku wax ne la lii may ñaan nii man mii di waxee ak yow nii su ma la waxoon ne ne boo ñëwee ci man ñu li nga bëgg kenn mënu koo tee am dama lay wax lu ma neex yàlla ngay ñaan moom mooy maye da ngay fas yéene sabab lu ñaan yàlla yàlla nag moom mooy xool bu ko neexee may la bu ko neexee bañ laa may. sëñ Xaadim ku ñëw ne damaa bëggoon nga taal ma loo koy wax. bu yàlla bu ci yàlla àndee. gis nga bu yàlla àndee ci loola suñu borom dogal na am na loo xamante ni kenn du ko jëfandikoo ci àdduna te suñu borom dog ci bu ko dog ci dogalu yàlla gi mën naa dogal loola noonu maanaam nga yëkkati ko ci. am na ci loo xamante ni am na kilifa yu ko xam loo xamante ni boo koy jëfandikoo da ngay nekk ci kaw garab sax nga ko wàcc. suñu borom mën naa dogal nga yëkkatu waaye waxuma ne boo ñëwee danaa la taal ci force loolu man xamuma ko du ma wax kenn ndax gis nga yàlla mooy maye yow mi ñaan yàlla da ngay toroxlu yàlla soog laa may te booy toroxlu da ngay toog mën ngaa toog ci sijaadi googu noonu jooyal suñu borom sax suñu borom soog laa may léegi boo bëggee taxaw ne lii may yor nii xam nga kuy mayee da ngay mel ne li nga yor yaa ko moom yaa ko moom da nga koy ñaan di kii ñëw di ñaan loolu na xam ne sëriñ yi du ñu yàlla du ñu du ñu xut ay jaamu yàlla la ñuy ñaan ñuy ñaanlu seen diggante seen borom kenn te munta munta jariñ nit te yàlla andu ci kenn munta lor nit te yàlla andu maanaam yàllaa ci ànd rek njariñ loolu am yàlla moo ci ñàkk ànd loola bañ a am waaye nag nit ki am na droit bu nit ñëwee la mu xam mu jaaral ko ca te man am na loo xam ni du ma ci laaj nit fukki dërëm muy loo xam gis nga tawatu nit xalaatuma see laaj nit xaalis waaye nit ku ñu jóge ci àll ba nag am problème ci ay kiyam ak yooyu noonu sañ nga koo laaj na ko nangam wala nangam ndax tawat yàlla jaam bi moo ko suñ borom moo ko teg jaamam loolu da nga ciy mën a dimbali jaam bi waaye wa ilaa maanaam nit nag mu ñëw am na tawat muy jàngoroom nga ñëw sañ koo laaj xaalis bu dul yeex ngir jàngoro jooju bu boobaa mën koo yokk sax jàngoro. Mm-hmm. am boobaa mën nga koo yokk parce que nit mën naa ñëw am tawat sàngam nga war koo ñaanal. nga ne ko demal yit ma maanaam ñaar fukki junni su ko amul ba dee ci nag te yow nga mën koo faj maanaam responsable bu mag nga ci moo tax maanaam yim ñu tawat moom man xalaatuma see laaj ni dara waaye nag nit ku jógee ci àll ba am soxlaam soo xamante ni ci liggéeyam la wala ci dara maay xool lu ma neex ma laaj la ko. ñu daal di wax ci leneen loo xamante ne ni jaaxal na lool askan bi mooy mooy sonal ñu bari mu di rab ndax suñu xaar bi dina faj rab. xam nga ku wax ne damay ñaan. diw ñaan yàlla yow li ngay ñaan moomoo lu ne war nga ko man xam ndax danga ne damay ñaan yàlla yàlla nga koy ñaan xam nga rab moom dafa maam dafa dafa xaw a dafa xaw a waar. xam nga gis nga loolu. loolu mooy ku xamul asraar. c'est-à-dire mooy ku xamul asraar maanaam maanaam mbuuti suñu borom yi. kum ko dénkut doon takk benn sax bu la ko ci dénkee lenn loolu nga yor bu la neexee loo bëgg a def ci àdduna def ko ci man ngaa yor benn mbir boo xam ne. loo bëgg def ci àdduna mën nga ko def maanaam man am na si loo xamante ni sa maanaam mënuma koo wax ci sene waaye dafa am loo xamante ni njëlbeen nga ci ñooñu la maanaam njëlbeen nga ci ñooñu la ndax ñoom bokk nañ ci ñi nga xamante ni maanaam ci sama ay maam lañu nekkoon bokk nañ ci ñi nga xam ne ci ñi may dimbali ci lu bari bokk nañ ci ñoom nga xamante ni ñoom bokk nañ ci ñi may dimbali ci lu bari bokk nañ ci ñi may suturaal ci lu bari. kon dama ne ñoom ñooñu nga tudd léegi. ñoom bokk nañ ci ñi may dimbali ñoom ci lu bari. bokk nañ ci li may suturaal tamit ci lu bari. Mhm. mais suñu xaar bëggoon naa foofu nga wut ñu leeral ko tuuti na day des fois dañuy dégg ñu ne ki mën a seet du mën a ñaan du mën a faj rab lépp du boole combiné wu. xam nga xam nga booba kooku dafa gëstuwut donnut gis nga boo gëstoo donn lu ne war nga ko mën a man xam nga gis nga seet bandi ba ci àll ba sax da koy man maanaam seet du dara wuute wuute maa moom ñaan dañoo différent maanaam bokkuñ xam nga tey jii seet ci boppam ay chiffres la yooyu tënk rek wa ilaa nga maanaam nga tërbeewu rawxaan ba boo nee jàkk nit ki mën koo wax léppam dama ne loolu du xam-xam am na si yoo xam ne ni doonul xam-xam bu tax ñu naan xam-xam seet ma ne seet maanaam ak ñaan bokkuñ xam nga li am solo mooy nit ki bu ñëwee nga xool tabihan xool mbiram ba man koo wax loo xamante ni li nga koy wax mu wér na ne du dañ maanaam bu tëddoon di nelaw dana xam ne kii li ma wax ndax nit ñi bu ñëwee caw li ñuy njëkk a mooy danay dañuy seet am na ñoo xam ne dañuy seetlu ngir nattu la te xamul ne mën nga kaa gis nit ki ci seetkat te doo ko mën lu am solo boo gëstoo tegu fa nga war a tegu maanaam xëcc rawxaan ba ba li nga soxla ci moom nga koy nga koy am wala li nga bëgg mu wax la ko loolu jafewul ci xam-xam am na ci ñoo xamante ni dañuy concentré wu ci benn mbir nag am na ci ñoo xamante ni ñoom ñooy bëgg doon doon ay seetkat kese bu boobaa nag mën nañoo jël turu rawaan maanaam woo ko ba bu ñu woo wooyee nit ki lu ñu bëgg xam ci moom xam ko ci moom wala bu nee jàkk ci nit ki xam ci moom xam ko ci moom non ngay da am maanaam mën ngaa am jinne ju la bëgg di la wax loolu wa ilaa rawxaan boo xam ne yaa ko tàggat ngir maanaam mu lay wan loolu rek loolu soo ko defee suñ borom man naa dogal loo bëgg a xam ci nit ki xam ko ci nit ki suñ xaadim am na tamit euh, des fois dañuy gis yenn feebar yoo xam day dal nit muy lu mel ne ngóor a des fois nit da koy tëlee yu suñ xaadim dafa xam nga loolu li ma la wax ci ñaan léegi laa la wax dama ne la bis boo nee damay fas yéene di ñaan sama borom loolu noonu suñ borom mën na laa suturaal ba lu bari nga man ko ci xam nga ngóor maanaam ci alxuraan xoolal mën naa ko mën na maa jox nit ñi lu gàtt fi mu toll nii bu ne woon damaa takk dañoo takk nit xala gis nga boo jëlee li ilaa fi xorisin bind ko ci euh, njuur semmiñ teg ko ci taal ba mu tàng boo ko defee ci ndox boo ko sangoo maanaam fekkee da maanaam tëli moo la jàpp ci sens lay dañ xam nga loolu bokkut ak ki nga xamante ni nag maam dafa néew kattan nga am loo xamante ni nga koy jox mu jëfandikoo ko mu dañ wa ilaa koo xamante ni aw awram dafa gàtt nga mën koo jox loo xamante ni bu ko lekkee def ko ci ñam bi nga xam ne bu ko lekkee suñ borom mën na koo suturaal ba ba mu bëgg na mu bëgg mu toll ko mu toll xam nga loolu damaa laa wax léegi ne la ñaan boo koy def tey ñaan yàlla da ngay ñaan yàlla rek yow miy ñaan yàlla doo osé ne lii may ñaan yàlla kenn mënu koo te am waaye da ngay ñaan yàlla am na yaakaar gis nga lii lu ñu la fi wax lu ci ne kenn ku ci nekk am na kuñ ca jaaral koo xamante ni mi ngi ñuy dégg wala mi ngi ñuy kenn ku ci ne ak fan ko jaaral koo xamante ni loola noona suñ borom dogal na mu am ca ndam ba nga xamante ni lam bëggoon am na ko moo tax ñuy sañ a wax ñu la wax ne la nangam lii am nañ ci yaakaar mbirum yàlla da dul tey jii mën ngaa jox kii lii mu am suba nga jox lii kii du am maanaam mbirum yàlla noonu la demee maanaam tey jii li lii nga naw nii ba jëm ci mën nga koo jëm léegi suba suñ borom ne lii nga naw nii du ma ko du maanaam du maanaam lii nga naw nii du ma ko naw loolu moo ci nekk waaye lu ma la wax fii rek lu jaar nit la ba suñ borom dogal nit ka mu am ca ndam am ca bunt bu yaatu moo tax ñu sañ a wax ne am na yaakaar ne xam nañ nangam. jamono ji ku ne soxla na ñaan ndaxte boo gisee mbas mi wàcc ci réew mi gaare na activité yu bëri suñ xaadim bëggoon nañ rek nga wan ñu loo xamante ni bu ñu ko jëfandikoo jàngoor ji dinañu mën a abal jàng xasida a xàqan ba ci yeseer xasida wakaana xàqan jàng ko ba ci yeseer lohum bihi lesi tansara fukku lu maay sa toxu ta yasara boo ko jàngee ba ci yeseer lohum nga baamu ko 313 kese doy na sëkk nga àggale xasida gi boo àggalee xasida maanaam nga nga nga ñaan ci suñu borom musal la ci musal ci sa njaboot képp koo xam ne ne da ngaa ci sa kër sa kër bëgg yàlla aar la ci sa kër ak sa njaboot da ngay pax ba mu toll fii sa nga jël junni xeer teg xeer bu ne nga jàng ci inaa axte naakal kawsar tàbbal ci pax bu paree maanaam nga ndox sotti ko ci bam ba mu maasee wax say doom na ko ne cëpp loxo mos nga suul suñ borom dana dogal mas ma lu mu tar tar tar tar dana la ci musal yow yaa ak sa njaboot waaw am na solo kon nag dégg ngeen ni ko sëñ Xaadim waxee na ngeen ko fas yéene defee noonu ndax jàngoro ji yaakaar naa ne nu ñu mën a abalee rek moo ñu daal di gënal euh, sëñ Xaadim gis nañ ne tamit ñoo xamante dañuy def lu bon rek moo leen tax a jóg am ñoo xam dañu naan yàqal ma diw wala tëjal ma bunti diw yu ni mel ndax sëñ Xaadim dina def yooyu du ma ko def loolu loolu lu am solo la sax ndax maanaam dégg naa ay nit ñuy wax ci benn taalibe sëñ Tuubaa maanaam di joxe ay lim pour gàllankoor sëñ Tuubaa waxoon na ne man zanna xayrallaahi yux nii aw yodur fasaaka fi daari ni suu kaddin wadur gis nga lor néwul ci ku weex néwul ci ku ñuul lor néwul ci kenn koo xamante nii maanaam mi ngi doon na doon na doon na ab kàccoor wala ku baax sax lor ci yàlla la nekk te yàlla moomu mooy mooy dimbali mooy moo moo mooy lore lépp ci loxoom la nekk gis nga loo mën a joxe ak loo mën a wax te yàlla àndu ci du am ndax gis nga ab taalibe bi Sëriñ Tuubaa buy liggéeyal Sëriñ Tuubaa fas yéene liggéeyal sëriñ Touba maanaam nga bëgg ne danga ko fay kooku sëriñ Touba du ci ànd maanaam nañu bàyyiwaat suñuy xel xam ne maanaam diine ji benn la lislaam ji benn la maanaam jullit yépp benn lañ waxtasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu garab la gu meññ goo xamante ni garab gi moo yonente bi sallallahu alayhi wa sallam banqaas yi mooy kilifa diine yi maanaam gis nga nag kenn koo xamante ni da nga seetaan maanaam man ngaa xool ab jëmmi doomu maanaam nga am conscience jaamu yàlla ba noppi bakk yàlla ba noppi toog njàqal ci nit koo man a doona doo ko baax képp ku am conscience bu maanaam jaamu yàlla ba noppi woo suñu borom ci turam yu màgg yi ba noppi maanaam jël nit daan ne kii dama ko ci bëgg toroxal pour mu suufee wallaahi xasin war ngaa xoolaat sa bopp gis nga xol moo jaamu yàlla ma wax la ne xol bu sellut maanaam nit mënut a jaamu yàlla moom xol bu laabut nit mënut a jaamu yàlla moom te sab xol boo ko sellalee boo ko sellalee te xol bu sell man maanaam maanaam man sama wàll bopp li ma gën a gëm ci àdduna mooy xasiday sëñ Tuubaa yi li ma gën a gëm ci àdduna mooy xasiday sëñ Tuubaa yi xasiday sëñ Tuubaa yi te maanaam ma wax la benn affaire maanaam Sëriñ Tuubaa maanaam dem na ba ñëw te dafa wax ne wallahu yansuru nii wal xalqu tatbaxu nii fil barri wal bahri sa naf in bila dara maanaam moom njariñ la lu àndu lor maanaam gis nga lor képp koo koo xamante sëñ Tuubaa wax na ne képp koo xamante ni yëkkati nga maanaam lor jëmee ma ko bala ngaa dee gis ko képp koo xamante ni yëkkati nga safaan maanaam jëmee ma ko bala ngaa dee gis ko mooy taalibe yi sëñ tuubaay yi nañ leen waggar gis nga jullit yi benn lañ nañu jéem a bennoo doon benn bañ a jël lii fenqale fii bañu jël lii taf fii parce que amul njariñ am na loo xamante ni nit boo ci bàkkoo ba yaakaar ne lii ma yor mën naa cee faagaagal gu ko ma soob nit yor na lu koy contre contrecarrer loo xamante ni la nga def dara du ci am fi ñu wéeru mooy ci Serigne Touba fi ñu tënku mooy ci Serigne Touba te ab muritu Serigne Touba bu gëm Serigne Touba wóor ta xof wóor tiit maanaam gis nga buñ la tëkkoo nga tiit li nga doon matoo suñ la waxee ne nangam lii nga tiit li nga doon matoo xam nga lu am solo mooy maanaam jéem a wéeru ci sëñ Touba rek tey ñun maanaam bépp murit boo xamante ni ñi ngi lay wax maanaam sëñ Touba maanam xuppee nañ ko nu ne xuppee nañ ko nu ne xëppee nañ ko nu ne lu ne jéemal nañ ko sëñ Touba te bi mu ñëwee taxaw na ne jéggal naa ñëpp. ñun taalibay Sëñ Tuubaa yi danañ fas yéene jéggal ñëpp waaye xam nga lu am solo mooy li ñu war ñu ne ca waaye ab jaamub yàlla wurta jéem a wut naa damay yàq jaamub yàlla maanaam conscience su nit sax waru ko maye wurta maye yow nga toog liggéey sa tur yàlla ba mu sotti nga war cee ñaan yàlla mu yéegi de war cee ñaan yàlla mu yéegale ci maqaama yu kawe war cee ñaan yàlla maanaam mu may la sutura su yaatu ci àdduna maanaam nga bëgg cee maanaam yàqal yàqal nit ñi loolu loolu loolu bu mu loolu bu ko kenn jéem def déet déet mukk maanaam yàq nit amul sens moo gën a gaaw gën a yomb nit ñi xam nañ ci lu ne mën nañ ci lu ne gis nañ ci lu ne ndax fu ñuy fu nit di raase ci àdduna xam-xam raase nañ ko lu maanaam lu ñuy jàngale ci tur yàlla ci nit maanaam jàng maanaam jàng nañ ma ne kooku daa mënul rek ku mën a yàq mën a defar gis nga bala nga am man laxas da ngay mën bala ngaa mën laxas da ngay mën làqar bala nga am bu bala ngaa mën làqate man laxas mm-hmm. te ñoom ñaar ñëpp da koy boole mm-hmm. waaye xam nga lu am solo mm-hmm. am na si loo xamante ni kenn suñu ko biral waaye gis nga maanaam taalibe sëriñ Tuubaa yi dañoo fees dell ci lu leen sëriñ Tuubaa suturaale waaye ñun suñu noo wax suñu noo jëf parce que ndigal rek ci la ñuy tënku waaye nañ jéem a bennoo jéem a doon benn jéem maanaam li ngay jël nit di ko def ci lu baax nga jéem koo def ci di ko def ci lu bon nga jéem koo def ci lu baax ci sa jëmm ngir yàlla gën laa yëkkati loolu lu am solo la waaw. am na solo sëñ Xaadim ku la bëgg a jot rek nan lay def. ñun ñu ngi dëkkee Saam yaakaar naa fekkee fi jamono yii ñu ngi ci réew mi ndax mbas mi téye yëf yi ndax yaakaar naa heure bii daawuñu fekk fii heure bii fu mu mas a jotee ñu ngi ko daanañ génn feneen waaye nag fi mu toll nii mi ngi ñu fekk ci réew mi. maanaam ku nu bëgg a jot xëy ne numéro bi da ngeen ko da ko da ngeen ko waxe wala ngeen euh, wane ko bu fekkee mm, soppe ngeen ko noonu insha allahu rabbi d'accord ñu daal lay bàyyi rek nga daal di tàggatoo ñu ngi lay jaajëfal bu baax ñu ngi leen di sant bu baax yéen di leen gërëm di ñaanal ñii fi toog ñëpp jàmm ak tawfeex di ñaan ngeen dajeeg ngërëmul sëñ Tuubaa waaw ñu ngi leen di siyaar ñëpp rek incha allahu rabbi ku bëgg a gis da ngay ñëw ci sëñ Xaadim mu daal lay defal nga daal di gis canta ngërëm ñel ne leen amee intox na di ci teewlu bi di leen dig daje ba ëllëg ak jàmm incha allah